asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, bokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen massawit coono ci farlu gi ngeen am ba jóge fu sori ñëw ak yoon wi ngeen jaar ba ci dëkk bi ñu ngi leen di massawu coono di leen jaajëfal di wax rek ni ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci turu sëñ Mouhamed Mahfouz Kunta mi nga xam ne mooy chef de village bi euh, lii nga xam ne nag moo leen fi indi tey muy mbirum xale yi lii nga xam ne moo leen fi indi tey muy mbirum xale yi ngeen ñëw te mu di mbirum dëkk bi yépp nag ngeen ñëw di leen jàppale ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax mu doon mbir moo xam ne itam jëkkul tey euh, ñu bëri ñu ngi ci jataay bi xamante nañu toog nañ jataay yu bari lu jiitu tey ñu doon loo xamante ni bii yitte ju ñu am ci dëkk bi la ak jox gu ñu jox dëkk bi àqam xam ne itamit lépp loo xamante ni bii mu ngi koy def dana jaadu ci ñoom ñu taxaw ni ñuy taxawoo dëkku diine yëpp xale yi nag ay xale la ñuy ndaw di jàng waaye yoon wi ñu sóobu defe naa ni mag ñi sax dañ koy rafetlu ndax xale yoo xam ne bi ñu taxawee gis ni ci dëkk bi lañ dëkk gis it ni dëkk bi kenn du ko defar ku dul ñoom dañu farlu jël seeni rak di leen soññ ci njàng mi muy ñiy jàng arab ak ñiy jàng nasaraan yëpp ñu taxaw taxawaay boo xam ni ànd nañu ak ñoom ngir defar dëkk bi satalaat dëkk bi taxaw fi lépp lu war a am def fi ay liggéey yoo xam ni bu doon dañ koy joxe ci alal dina jafe lool ñu def ko waaye itam di soññ xale yi ci jàng ba tax ñoom ñu dajale seen alal seen dërëm ak seen ñaar dërëm di ko jënde ay euh, hadiya di ko jox ñi nga xam ne ñoo raw ci école bi defe naa ni loolu bariwul fu mu am ah, wante nag loolu yëpp dañ leen di gën a soññ ndaxit it liñ bëgg ci ñoom mooy ñu jàng waaye njàng mi ñu soxla ci ñoom mooy njàng mu ànd ak yar ak i teggin ñu ngi koy am ci ñoom nag taxut ni doylu nañu ba tey ñu ngi leen di soññ ñu gën a feddali seen taxawaay waaye may fàttali rek ni lii ñu def tey am na yeneen jataay yoo xam ne dañ leen ci soxla lu mel euh, soxla su mel nii ngeen taxawaat ci ndax bés bu mag mi ngi ñëw muy guddi maam yi na Amatul Kunti te bis boobu ku ne xam na ne ñu bëri ci jotaay bi daanañ ko teewee bëgg nañu itamit euh, ñëpp ñëwaat takkuwaat taxaw ñu jàppaat ci niñ ci daan jàppe ci ndigalu sëriñ bi mu ngi fàttali itamit ki nga xam ne mooy gouvernement Sénégal ndax dëkk bii day 1800 ba léegi. damay wax ni ñu ngi fi liñ fi nekkee woon nag mooy jàng jàngale liggéey ak yar bu ànd ak i teggin fii ci ndànk dëkku Cheikh Abina amatul Kunti kon suñ demee ba toll ci jamono bi nga xam ni gouvernement bi wala gouvernement yi dañuy nemmeeku dëkk yi diine yëpp am nañ yaakaar ni dëkk bi war naa bokk ci dëkk yi ñuy nemmeeku jàppale leen te defe naa ni yoon wi ngeen jaar ñëw ku fi jaar dina xam ne dëkk bi du ma ni dañ ko desal ginnaaw waaye itam li mu war a am amu ko maa ngi ñaan nag ci kàdduy borom dëkk bi di fàttali gouvernement bi di leen wax ni la lii nga xam ne moom la dëkk bi yelloo day nañ ci dimbale jàppale ñu ci ñu ngi leen di jàppale ci lépp loo xam ne séntu nañ luy defar réew mi la waaye nag it bu baax tamit nañ jàppale ci lépp loo xam ne mooy defar dëkk bi dëkk bi nag li koy defar li ci jiitu mooy diine yar ak teggin waaye itam li koy defar mooy yoon wi ku ko gis xam ne yoon wi baaxul euh, yéen a ngi ni ñëw euh, tey jii ñuy wax ak yéen groupe lañuy jëfandikoo ngir mën a am lu ñu taatane kàddu yi loolu itamit lu doy waaral loo xam ne itam ñu ngi ci séentu beneen taxawaay di ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm defal ko mboolem jullit yi nga xam ne ñoo fi teew di ñaan yàlla itamit xale yi taxawaay bii nga xam ne moom lañ taxaw yàlla na leen yàlla xeebloo seen jëf doomu aadama bu xeefee jëfam jëfam rek mën naa egg fa mu jëm waaye bu nafee nawee jëfam du egg fa mu jëm te itam la mu yaakaar mën naa yàqeeku kon yàlla bu leen loolu dal ñu ngi leen di gërëm yéen nag ñii fi ñëw kanam yii du kanam yu ma mii yu ma yu ma yu bees ci man am na fi ñoo xam ni man naa wax ni fukki at ci gannaaw wala juróom-ñetti fukki at juróom-ñetti at ci gannaaw ñu ngi doon daje ci daje yu mel nii di waxtaan ci mbir mu mel nii ñuy jàppale dëkk bi kon jërë ngeen jëf yal na yàlla rafetal seen taxawaay bërëb bi taatanukaayu kàddu yi ngeen jóge itam fu ci nekk yal na fa yàlla dolli jàmm ak naataange ju ànd ak yërmande ju sax dàkk bi xormati seydina muhammad sallallahu alayhi kon daal lii ma doon kàddu ñu ngi leen koy jot ci ndigalu sëñ Mohamed Mahfouz Kunta wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Je voulais de résumé sur le village de Ndank. Le village est un religieux qui date depuis 1800, fondé par notre cher vénéré marabout, Cheikh Al-Bouna Kunta, qui naquit en Algérie en Il a quitté l'Algérie à l'âge de 20 ans et vient fonder le village de Ndank à partir de 1800. Ndank est un foyer religieux qui date depuis très longtemps. Mais malheureusement, nous n'avons pas assez de matériel. Vous voyez la situation du village. Vous êtes un témoin oculaire parce que en venant ici, vous avez passé sur la route qui de Ngaï à Dankh. Et exactement la situation de la route. Donc nous lançons un, appel au chef de l'État, M. Macky Sall, puisse nous, aider à construire cette route-là qui de Ngaï à Dankh. Parmi les doléances, nous avons aussi le problème du CERN. Parce que ici, nous avons qu'une seul, qu seule école élémentaire qui date depuis très longtemps. Et lorsque les élèves ont eu, on le sait, e, ils droit de quitter ce village pour aller à Ngaïméré étudier. Et ça, nous le déplorons. Donc nous lançons au président Macky de nous aider à construire un CEM ici à notre village de Ndank. Nous avons aussi le, un problème de correction parce que nous sommes des étudiants et lorsqu'on est nous sommes ici au village de Ndank, mais en faisant rien parce que nous n'avons pas de réseau. Le réseau est faible. Donc nous lançons un appel aux sociaux à savoir l'Orange Tigo ou l'Expresso, de nous offrir une antenne ici qui peut nous aider à réaliser certains de nos documents ou à faire une collection qui va nous permettre de nous avancer sur notre étude ou sur nos études. Nous avons aussi un problème de calendrier. Parce que vous voyez ici, lorsqu'on veut aller à c'est difficile. Il faut appeler un calando et Donc nous lançons appel aussi au président Macky Sall de nous aider, de nous donner des calandos ou bien des tatas qui Dank. dama Monsieur le Président, je voulais aussi souligner, nous les étudiants qui étudient à l'UCAD de Dakar ou bien à n'importe quelle université, nous rencontrons des difficultés énormes, à savoir le problème de logement Vraiment, nous sommes très fatigués parce que là-bas à l'UCAD, vous voyez que les étudiants dorment sur des tentes ou bien sur des couloirs. Et ça, c'est regrettable. On appelle de nous offrir des logements, de nous régler aussi nos problèmes de bourse parce que nous avons des qui doivent quitter ici ce village pour aller étudier. Et ils n'ont pas encore des logements et ils peuvent encore aussi rencontrer des problèmes ou bien des difficultés de bourse. Et un étudiant sans bourse ni logement ne peut pas étudier dans de bonnes conditions. Donc nous vous lançons, Monsieur le Président, un appel de nous aider à construire notre vie parce que seul le travail paye. Et nous savons que les étudiants qui sont ici en Dakar travaillent bien. Parce que vous voyez que euh, le taux de réussite sur le BFM et le baccalauréat est vraiment satisfaisant. Donc nous vous lançons un appel nous offrir des jigéen ñi am nañ jafe-jafe yu baree bare am nañ jafe-jafe liggéeyukaay bëgg nañoo liggéey amuñu benn financement bu ñu liggéeyee ñu ñëw bëgg na jàng nañu ñaw jàng nañu ràbb jàng nañ cuub bëgg nañoo mbay mbayum noor amuñu leen luñ ko defe ndax mooy ku ñu jàppale woon ba ñu am moyen bu ñu ko defee ñu ñu nga jàppale ñu ñu def moyen bu ñu mën a góorgóorloo ba liggéey ndax ñu mën a jàppale suñu bopp dañ dañoo fàtte kenn suñoo jox benn financement benn yoon du benn année boo xam ne dañ koy ñu koy def daanañ taqale sax ñu suñu bopp di def suñuy fukki dërëm ak juróomi dërëm di taqale di ñaw di ko jëndante suñu biir waaye bu amuñu benn moyen bu ñu ko mën a def bëgg nañ daal ñu jàppale ñu li ñuy jàppalee doom aadama njaay ñu suqali suñu bopp mën a liggéey lenn lu ñu jariñoo ñun jigéen ñi comme ni ko xalifa waxee association bi li ko tax taxaw du lenn lu ndànk comme ni mu ko waxee ndànk foyer religieux ndànk ku ko xam xam ne ci lislaam lay dox ndànk si diine lay dox loolu buñ ko gisee ñu yar ñu si ñu màgg si génn dem xool ñu gis ne àdduna buy dox da ngay dox àndal ak moom ñu gis jàng bi ni muy demee ci biti tax ñu dellu si xoolaat suñu bopp ni taxawal loo xamante ni suñu rakk yi suñu ñëwee dañ teg seen tànk pour gën a xam àdduna ndax bu ñu waxantee dëgg rek xam nañ ni jàng alxuraan baax na lool mais boole koog lu lay jàppale si sa àdduna te xam nañ pays yu ñu nekk français moo fi ëpp doole. ko defee nañ taxawal association boo xam ne day lënkale xale yi nga xam ne dañoo jàng ba génn bu ko defee. ñu mën a yokk seen njàng loolu taxawal ci atum 2010 ñu taxawal association bi nga xam ne moom la ñuy wax ADEM association des élèves et étudiants ressortissants de Ndank loolu bi ñu koy def lenn taxul lu dul comme taxawal journée yu mel nii sensibiliser comme niñ ko defee tey def nañ ay sensibilisation def nañ euh, consultation gratuite si ngoon gi incha allah dinañ def conférence démb def nañu set setal ci ngoon gi wàcc nañ kaamilu maam Cheikh Bounama Kounta ñaanal nañ si réew mi ñaanal nañ leen si yéen pour ngeen tegu si yoonu jàmm ñaanal nañ si àdduna bi yëpp bu ko defee suba nañ def journée boo xamante ni nii ñoo ngi koy def ci turu waa ndànk di si joxe ay cadeau cadeau yooyu nag duñ ko jox kenn ku dul élèves yi nga xam ne ñoo gën a wane seen bopp maanaam les meilleurs troisième de leur classe maanaam di C CI ba cm su ko defee suñ fa jógee ñu xool suñu rakk yi ak ñun ñii ak keneen ku mu mën a doon ko xam ne distingué nga ci biti maanaam kii def CM kiy def lycée ba ba université maan dañuy xool si moyens yi nga am bu ko defee ñun xool nañu maanaam ki nga xam dafa atteindre tableau d'honneur maanaam moyenne de 12 ñun ñooñu ñëpp dañ leen di offrir cadeau suba incha allahu rabbana léegi ñi fi nekk tamit distingué wu di ay mag defal nañ leen ay diplôme d'honneur incha allah loolu defuñu ko ngir lenn loolu gën leen encouragé gën leen joxe ay exemple yaakaar naa ni association bu ñu ko dee tënk si loolu lay dox si looloo tax ñu taxawal bëgg nañ ndax xam nañ ni mbooloo mooy doole ñu bëgg a tënk mbooloo moomu pour sàmm leen wan leen di leen si lii lañ war a dox pour tënk mbooloo moomu pour lii lañ doon organiser tey ndax bu doon kenn nit la amaana du leen def déplacement mais bu dee mbooloo ak seen mbaax ñoo ngeen def déplacement ñu bëgg nag ndànk am na ay énorme problème comme ni ko Khalifa waxee am nañu problème pour clôturer école primaire bi am nañu problème pour euh, salle informatique ñu am ko foofu bi ba léegi ndax ñun bu ñu bëggee def ay étude ci guddi gi dañuy am problème bu examen jubsee pour ñu def fa ay cours dañuy am problème ba démb bi ñuy denc suñu matériel bi ñu doon war a indi fi dañu am ay problème ndax on était obligé ñuy àbb ay torche ak lu nekk di dem foofu pour nit te nawet bi tamit wóorul soxla nañ fa électricité soxla nañ tamit poste de santé ñu am ko si dëkk bi soxla nañ aussi tali bi comme ni ñu ko souligné surtout loolu la ñuy gën a souligné ndax koo léegi kaay ma la ndànk lu mu lay njëkk laaj defar ngeen seen tali bi kon loolu soxla nañ ko Macky Sall ñu ko ci woo si loolu noonu bu ñëw jàppale ci di si woo ministre bi yor wàllu woowu des infrastructures ñoo ko ci woo surtout di ci woo bonne volonté bu nga xam ne mën nga pousse suñu doléance bi pour mu yegg fi mu war a yegg ñoo la siy woo ngeen doxal ñu waxal ñu ci soxla nañ bu baax tali soxla nañ yeneen i mbir maanaam soxla nañ ndànk suñu toll fii tey di ko lim duñu fi jóg bari nañu lool lool lool lool te ñi fi jiitu si lañ bokk ñun ñi ñi fi bokk ci njëkk a ñëw ci Sénégal yaakaar naan bu ñuy xool ndànk si la boobu soxla nañ CM CM bi comme ni ko xalifa waxi ndax ndànk boo xoolee xale yi yëpp léegi ñoo ngi jàngee ci biti ñun ñi ci biti la ñuy jàng boo demee ngaay problème yu bëri la ñuy am problème logement problème lu nekk ñu ñi ñun problème logement bu ñu ko amee université à partir di CM lañ koy am ndax pour nit denc la ci këram dafa metti surtout nga doon trois gosses deux gosses ñu bëgg leen dénkaane ci benn kër da ngeen di am ay problème bu ko defee problème yeneen ñëw tegu sa kaw nga war a def étude mu leen di fàttali tamit ne ndànk problème yooyu mu am surtout teewul résultats yi sont honorables ndax tey bu ñu xoolee résultat ndànk ci gox boobu benn gën lewu ko mu CM muy lycée muy fépp ba ci bac tey am na élèves yu fi am ay mention am na ay élèves yu def lu nekk ci maanaam loolu rek lañ leen di fàttali maanaam wane ne ndànk toogul ni yàcc toog di xaar lépp maanaam ñoo ngi bu ko defee ñu ñaan autorité ñu gën ñoo dool gën ñoo jàppale pour ñu dem problème bu salle informatique bi wax naa ndax léegi àdduna tamit day dox ci technologie nouvelle technologie soxla nañ ko fi ndax bëgguñu ba dem CM wala ñu dem université ñu wax université virtuelle mais bu amul fii euh, problème bu connexion ordinateur boo mën a dox mais bu demee université virtuelle nan ngay jëlee say cours da ngay obligé di dem def ay cours di dem ñu lay renforcer wu pour nga mën a taxaw te loolu dis euh, day jël temps léegi après te dès maintenant bu ñu demee primaire rek ñu mën a am loolu noonu mën ndax boo ñëwee ci village ñu bari moom ñu mën portable yenn portable sophistiqué yi sa mënuñu ko manipuler bëgg nañu jàppale ci loolu jàppale ci yeneen doléance comme ni leen ko waxee lii di dellu di remercier di leen ñaanal ngeen dellu ci jàmm di remercier waa ndànk yi di dellu di nañ leen yéen ñëpp yi doon defal tey consultation remercier waa dëkk remercier surtout yi ak yi ñu jàpp taxawal bis bi ndax ku nekk am na loo ci def muy ngaay muy feneen ak feneen ku nekk bu ñu leen doon leen tuur yi duñ fi jóg ñu ngi leen di remercier ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah ausbillahi sami alim min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwata illa billahi aliyul azim bokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhum ki taxaw di wax ak yéen mooy sëriñ Buuna Kunta dëkk ndànq naar ndànq kunta ndànq di cosaanul ahlul kunti yu ndànk suñu maam abu na Abouna Ahmadal Kounti moo ko sanc en 1800 1800 nag ba léegi yàgg na ndànk muy dëkk boo xam ni dëkk bu mag la dëkk boo xam ni bokk na ci dëkk yi ñuy liim ci kunte yi moom mooy ndey ji mu mel ni buñ tuddee sanc Buuna Bekkaay Buuna Bekkaay sëtam sanc ko Goyot Chérif Ndeer Naar ak Njaasaan gi ñu gën a miin di caatu Cheikh na Ahmadal Kounti yu sanc ko muy cheikh bu Mouhamed ñu wax ni ndànk depuis 1800 la ko cheikh bu naama sanc fi mu jaar bari na ba ñëw sanc dëkk bii di ndànk wax nañu ni bi muy ñëwee fii dameel yi ci histoire bu gudd ba mu ñëwee soxla fii ànd ak dameel dafa ñëw wër ba egsi ci gàttal mu tibb ci suuf si foon ko daal di ree ni baldatun tayyibatun wa rabbul xafoo ni bërëb bu sell bërëb bu barke buur bu bari yërmande moo nekk ci bërëb bii ñu wax ni Cheikh Bounama Kunta suuf si fekk na ko mu barkeel suuf su barkeel la waaye bi suuf si barkeelee ba pare Cheikh Bounama dafa déyanteeg suñu borom wax ni suuf si suuf si barkeel na bërëb bu sell la waaye man de comme suuf si barkeel dinaa am lu ma jaayanteeg suuf si moom Cheikh Bounama Kunta mu jaayanteeg suuf si ni ko dinaa la may njaboot gu barkeel ci suuf si njaboot goo xam ni njaboot gu tee la ñuy doon. njaboot gu dal la ñuy doon njaboot goo xam ne njaboot gu barkeel la ñuy doon njaboot gu ñuy dégg la njaboot goo xam ne gu ñuy yaakaare àdduna la gu ñuy yaakaare laaxira moo waral tey ji Cheikh Bounama Kunta bi mu fi jógee ba léegi ci maam ba léegi xam nañu Kunta ak dal lañ leen fekke ak yar lañ leen fekke ak tey lañu leen fekke donte li ñëpp bëgg bëgg nañ ko li ñëpp soxla soxla nañ ko waaye dañ ci ànd ak dal ak teey kon daanaka li Cheikh Bounama jaayonte woon ak suuf si bi mu fekkee suuf si nekk suuf su barkeel mu jaayanteeg moom ni ko barkeel nga waaye dinaa la wutal ak njaboot gu barkeel njaboot googu tey ji ñoo dem ba sët sëtaat yi taxawal benn journée culturelle boo xam ne dafa ñëw aju ci dëkk bi waaye aju ci gox bi waaye aju ci senegal gépp taxte journée culturelle bi ñuy def maanaam bi mooy démb dañ doon def set setal te ku nekk xam na ni set setal baax na ci set dafa baax ci wér yaram set dafa baax ci diine biñ yendoo def set setal ba julli jumaa ba pare ñu julli tàkkusaan dañoo ñëw fii ci pénc mi dajale ñëpp wàcc alxuraan ñaanal ki xam ni moom moo ñu fi indi mooy Cheikh Abou Naamatul Kunti ki xam ni moom moo fi tabax lépp li xam ni diine ji ba tey jii ñu mën a toog suñuy sëtaak suñuy rakk ñëw di organiser lii ñu ñaanal ko mook njabootu ahlu kunti ak ñaanal Sénégal gépp tey ci samedi bi di la 5 ñu organiser benn consultation gratuite ñu ko def nag mooy ay étudiants ay ressortissants yoo xam ne ndànk lañ dëkk. ndànk lañ jànge ndànk lañ jóge dem ñi nekk lycée ñi nekk CM ñi nekk université ñu gis ni dëkk bi seen dëkk la mënuñoo defar lenn lu dul ndànk ndax ndànk lañ dëkk ñu ne nañ waa population bi suñu ndey suñu bàyyi suñu njijaay li ñu leen mën a fayee mooy organiser fa loo xam ne dañ leen koy njukkale organisation moom mooy ban mooy consultation gratuite élèves yi ñoom ñoo ko def étudiants yi ñoo ko def kenn ñoom kenn fekku ci leen ci seen poos seen alal seen doole loolu rek lañ def pour dimbale nit ñi dimbale seen i baay ak seen yaay ak seen maam yi loolu nag ku ne xam na ne consultation gratuite am na ñu mu gënoon a war bu ñu paree ci consultation ñu ne dañuy def conférence conférence bi ñu def mooy l'union et la solidarité loolu kon diine la union ak solidarité diine la union ak solidarité kon suñ ko waxee Cheikh ma solidarité bi mu waxoon ak suuf si ba tax mu def fi njabooti kon moom moo njëkkee union et la solidarité kon dañu mën nañoo wax ne tey jii. maanaam sët sëtaani taxaw nañu la Cheikh Bounama waxoon parce que union à la solidarité bi moom la Cheikh Bounama bokkoon ak suuf si defoon ko ak suuf si loolu moo dellu si tey ba xale yi taxaw union à la solidarité ñu war koo def conférence bi ci ngoon suba ñu ni ñoom am na seen i rakk ak seen i rakkaat seen jarbaat yoo xam ne ñoo doon jànge ci école bi ñu ne dañ leen di def remise de cadeau enseignants yi leen doon jàngal dañ leen di may ay cadeau kon loolu suñu xale xale yi xam dañ koo taxawal mu nekk lu am solo sëriñ bi ànd ci wax joxe woon ci ndigal population bi ànd bi dëkk bi yëpp ànd ci ñu wax ni cosaanu dëkk bi li xam ni tey jii mooy dëkk bi mooy li ñu xam mooy l'union et la solidarité loolu ñun suñ maam Cheikh Bounama moom moo ci ubbi woon ci lañ tàmbali woon ci loolu la doom yi nekk ci la sët yi nekk ba tey loolu mën a taxaw loolu la ñuy wax ni nag ñu ngi ñaan yàlla lépp loo xam ne dañ ko soxla wala ñu bëgg ko ci xam ne état ñun war naa ak suñu diggante ñoom ñu ngi koy sàkku ñaan ba loolu li ñuy defal ñëpp soxla nañ ko parce que tey li ñu taxawal nii ñi ko waroon a gën a taxawal état ci la bokk état ci njëkk moo ci waroon a jiitu ndax ndaxte consultation gratuite ñoo xam ne seen xale yi seen poste lañu yor di ko di ko joxe di ci def. conférence yi ñuy def financement yi ngeen gis yëpp ak yéen ñi xam ne da ngeen fay teew di ay journaliste seen seenu mbaax ak seenu yaatu ak bëgg dëkk bi moo waral tey jii loolu seen teewaay ci jaww si fii ngeen nekk nii fii nag mooy Ndanka Kunta fii mooy dëkk boo xam ne jëkk cosaan la dëkku ñaan la ñi ngi ñaan yàlla lépp lu ngeen fi indi soxla su ngeen fi indi ak yaakaar yu ngeen fi am yàlla bu ko yàlla tas ñi ngi ñaanal réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na si yàlla def barke ba liñ ni yàlla nañ ko yàgg a at yu bare bare ñu wax ni lii benn la ci événement yi am ci dëkk bi waaye ñoo ngi waajal dëkk gàmmu Ndanka allahu rabbi amaane lu mel nii ak leneen ak leneen ñu ngi leen koy jàmbat ñu ngi wax ni jërëjëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ bi